أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلدي ñi ngi àndaat ak yéen ci téere bu màgg boobu tudd kitaabu tawxid bu cheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullah tey ñu ngi ci buntub juróom-benneel di ci jàngali jàngale di ci fàttali sunu bopp di fàttali mbokk jullit yi fadlu tawxid wa ma yukaffiru min az-zunub ngëneel gi nga xam ne kennal yàlla tabaraka wa taala am na ko ak ki nga xam ne am na tawxiid jéggal guñ koy jéggal ay bàkkaaram mbokk yi tomb tey bi nekk juróom-benneelu tomb bokk na ci jubluwaay yi nga xam ne dinañ ko jëlee ci darsu tey bi mooy ab jullit war na fàttaliku ngëneelu seede amul benn buur bu ñu war a jaamu bu dul yàlla jullit bi war na koo fàttaliku ci loolu ñaareel bi mooy jullit bi war na xam firi mu dégg maana shahaadatu an la ilaha illa allah ci darsu tey bi ab jullit bi dinañ ci jàng dina ci xam dina ci dégg dinañ ko ci firil maana shahadatu an la ilaha illa allah ana lan mooy maanaam ana lan lay tekki ana lan lay wundu ana lan la làq ana lan la denc ñetteel mooy jullit bi na xam xam gu leer gu wér ñi nga xam ne dañoo ëppal ci mbiri yonent yi mu mën leen a delloo la ñu ëppal mën koo dàq mën koo leeralal ay mbokk jullitam ñeenteel bi ab jullit dina xam ngëneel gi nga xam ne moom moo ëmb moo denc ci sellal ngir def ngir yàlla tabaraka wa taala kese buñ ñëwee ci darsi bi saxaaba bu màgg bu tudd ubaada ibnu saamit moo ñu doon nettali hadis bu mu dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadis bi di jàngale hadis bi di leeral hadis bi ëmb ngëneelu tawxiid ak jullit naka lay def ba ñu jéggal ko ay bakkaaram moom ubaada ba mu ñuy nettali hadis bi nee na radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أن أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه بخاري ومسلم ولهما من حديث قطبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وبعد ابن سامت رضي الله عنه وأرضاه مونو نتالي حديث بي waaye bala ñu dugg ci xadis bi ñuy wax kan mooy ubaada tuuti moom ubaada ibnu saamit ibnu qays al ansaari al xasraji moom ubaada ci waa ansaar la bokkoon suñ ne ansaar mooy ci ñu teeru woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca madina daal di koy dalal tatagal ko dëkkal ko ñooñ ñooy waa ansaar ubaad ca la bokk abul walid mooy bàyyi walid kenn la woon ci way tànn téef yi ahadu nuqaba bi badr kenn la woon te ña nga xam ne fekke na badr ci sahaaba yu ñu tànnoon la mashhur ku siiwoon la waaye moom Ubaada maata bi Ramla faatu na ci place bu tudd Ramla sanata arba wa salasin ci atum fanweeri at ak ñeent la faatoo ca barab boobu nga xam ne mooy Ramla ba muy faatu nag wala hu isnataani wa sabuuna amoon na juróom-ñaar fukki at ak ñaar ñenn ñi sax nee nañ aasa ila xilaafati muawiya moom ubaada bi muy faatu fekke woon na jamono muawiya dund na woon ba jamono boobu radiyallahu anhu wa ardaahu moom ubaada moo ñu doon nettali hadis bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na man shahida an la ilaha illa allah ay man takallama biha arifan bi maanaha zahiran wa batinan képp koo xam ne dafa wax seede ci xolam gëm ci xolam dëggal wax ci làmmiñam wax gu leer naññ naññ naññ naññ ne moom mi ngi seede mi ngi wóolu mi ngi gëm di dëggal amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu gi nekk njëriñ illa allah bu dul yàlla wahdahu moom dong laa sharika lahu kenn du ko dendale kenn du ko bokkaale ak lenn ndeke shahadatu an la ilaha illa allah du nit di lu wax rek mu daal di jeex moo tax boroom xam-xam bi ne man takallama biha képp ku ko wax aarifan li maanaha mu xam dëgg-dëgg maanaa bi aamilan bi muqtadaha mu daal di jëfe lan la laa ilaha illa allah ëmb und baatinan wa zahiran ci lu feeñ ak lu nëbb képp ku ko wax ci lu feeñ ak lu nëbb lu nëbb kooku de dëgg-dëgg yàlla dina ko jéggal ay bakkaaram waaye mbokk yi képp ku seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu budul yàlla moom rek laa sharika lahu kenn du ko bokkaale moom yàlla kenn du ko dendale kenn wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh mu seede ne muhammad ndawal yàlla la jaamu yàlla la ginnaaw ba ko yàlla dafee jaamam nangul ko ko yàlla def na ko yonentam moo tax gis nga place yëpp importance ci alquran yàlla bu fay woo yonent bi abdu la koy wax subhaana allazi asra bi abdihi tabaraka allazi anzala alfurqaan ala abdihi وإنه لما قام عبد الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى جلد بنا سيدنا أن محمدا نك يونت يالا محمد عبده جامم لا ورسوله يننتم لا وأن عيسى نك عيسى مومد عبد الله جام يالا لا ورسوله يننتم يالا لا ndeke danañ dégg fii jànge fi ne isaa du doomu yàlla isaa du lenn ci yàlla lu dul jaamam abd abdullah képp ku seede ne isa jaamu yàlla la yonent yàlla la wa kalimatuhu alqaaha ila maryam baatam la bu mu sànni ci maryaama képp ku seede loolu isa jaamu yàlla la yonent yàlla la baat la bu yàlla sànni dugal ko ci maryam wa ruuhun minhu ruuh la bu bàyyeekoo ci yàlla nga seede ne wal janna xaq aljanna dëgg la wan naar xaq safara dëgg la képp ku seede yi yonent yàlla muhammad nee na adxalahu llahu aljanna yàlla dina ko dugal aljanna ala ma kaana min al amal ak lépp loo mën a def yàlla dina bàyyi li nga def dootu ko xool dootu ko seet dina la dugal aljanna allahu akbar wallaay dara gënta neex lii dara gënta baax lii lenn nekkul luy bëggal ab jullit ci àdduna lu dul lii képp ku seede ne muhammad jaamu yàlla la yonent yàlla la képp ku seede ne yàlla rek lañ war a jaamu waruñu koo bokkaale muhammad jaamu yàlla la yonent yàlla la isaa jaamu yàlla la yonent yàlla la baat la yu yàlla sànni ci maryam ruux la bu bàyyeekoo ci yàlla nga seede ne aljanna dëgg la nga seede ne safara dëgg la yonent bi nee na yàlla dina la dugal aljanna ak jëf joo mën a jëf ak jëf joo mën a jëf yàlla dina bàyyi fee jëf ji xool ci baat yi nga wax yii nga gëm yii nga dëggal yàlla daal di lay jël dugal la aljanna ñoo ne ci beneen riwaaya mu ne fa inna allaha harrama ala annaar borom bi tabaraka wa taala araamal na ci safara man qaala laa ilaha illa allah yabtagi bi dalika wajha allah képp ku wax laa ilaha illa allah dara taxul nga wax ko lu dul danga cee namm jëmm yàlla danga cee namm màggal yàlla danga cee namm sellal yàlla di ko bakk di ko kañ yenent bi nee na yow yàlla araamal na safara sa yaram ci safara yàlla araamal na sa yaram ci biir safara mbokk yi man ak yéen nañu ànd wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da doon toog ba caag mun a saxaaba yi jaddidu imaanakum jaddidu imaanakum beesalaat leen seen ngëm beesalaat leen seen ngëm saxaaba yi ne ko kayfa nu jaddidu imaanana ya rasulallah qaala quulu laa ilaha illa allah mu ne leen saxaaba yi ne ko yow yonent naka la ñuy beesalaatee sunu ngëm mu ne wax leen laa ilaha illa allah mbokk yi anasiru dars éléments yi nga xam ne moom la darsu tey bi ëmb leçon bi li mu denc li mu làq li mu ëmb mbir yii la bi ci njëkk mooy al amrul awal shahaadatu an laa ilaha illa allah mbir mi ci njëkk li leçon bi ëmb mooy ñeenti mbir la yu am solo ñeenti mbir yoo xam ne dars bi ëmb na ko bi ci njëkk mooy shahaadatu an laa ilaha illa allah seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu budul yàlla seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu budul yàlla wa maana la ilaha illa allah maana bi mooy laa maabuda bi xaqin illa allah waruñoo jaamu waruñoo seede ci dëgg ku dul yàlla tabaraka wa taala sahaadatu an la ilaha illa allah seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu budul yàlla wa maana laa ilaha illa allah maanaa bi lu muy tekki mooy laa maabuda waruñoo jaamu bi xaqin ci dëgg illa allah ku dul yàlla waruñoo jaamu ci dëgg ku dul yàlla tabaraka wa taala mooy wala tanfau qailuha illa ida ata bi naaqidi min nawaaqidiha laa ilaha illa allah du mën a jëriñ ab jullit lu dul dafa sànni contraire yi fële daal di ngëpp ci laa ilaha illallah ndax laa ilaha illallah dafa am ay contraire moo tax mu ne la laa maabuda bi xaqin illallah waruñoo jaamu ci dëgg ku dul yàlla kon ku jaamu keneen ku dul yàlla sa laa ilaha illallah kenn du la ko nangul al amru saani ñaareelu mbir mooy shahaadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mooy ñu seede ci dëgg ne muhammad jaamu yàlla la yonent yàlla la loolu mooy ñaareelu mbir ci anasiru dars mooy sahaadatu seede anna muhammadan naka muhammad abduhu jaamam la wa rasuluhu yonentam la ndeke jullit foog mu nangu ne yonent yàlla muhammad jaamu yàlla la waaye ndaw la lu yàlla yónni ar rasulu mawsuuf fi hadha al hadis bi wasfayni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dakaa melal ci hadis bi ci ñaari melokaan foog jullit bi nangu lool ñaari melokaan la yàlla melal yonent yàlla muhammad bu njëkk bi annahu abdun lillaahi bu njëkk bi mooy jaam la ñeel yàlla du jaamu kenn du jaamu ma sàmba du jaamu ma demba yonent yàlla muhammad abdun lillaah jaam la ñeel yàlla laysa lahu shay'un min xasaa'isi al uluhiya làqul benn jikko boo xam ne da koy tax mu nekk yàlla làqul benn jikko boo xam ne day tax mu jege yàlla di ko bokkaale kenn wala di ko jéem a dendale wala ak di ko jéem a méngaleeg boppam wa fi hada raddun ala man xala fiihi lii nag day dàq di soril di weddi képp koo xam ne dangaa yëkkati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bu ko dendaleeg yàlla hadis bi daf lay weddi wa fi hada raddun ala man xala fiihi lii day weddi di yedd képp koo xam ne da nga ëppal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa tawajjaha alayhi bi du'a nga jublu ci moom di ko ñaan au lieu nga ñaan yàlla ngay ñaan yonent wal istighaasa nga koy ngay sàkku xettaliku ci moom au lieu nga xettaliku ci yàlla wa gayru zalika min anwaa'il ibaada ak yeneen façon yoo xam ne ci façon jaamu yàlla yi yàlla moom la nga ne fi ko fi ñukk bañ ko jox yàlla nga koy jox yonent bi loolu laa tasixu illa lillahi wahdahu te mbir yooyu du wér lu dul ci yàlla kon dafa am lu yàlla moom buñ ko jaawaleeg li kenn moom ku nekk li nga moom nañ la ko jox dafa am lu yonent bi moom nañ ko ko jox am lu yàlla moom nañ ko ko jox ñaareel mooy annahu moom yonent rasulun yonent la ndaw la min indillah bu bàyyi koo ci yàlla arsalahu llahu yàlla yónni na ko moom yonent ila jamiil xalq ci mbooleem bindeef yi kon moom yonent sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni ci mbooleem bindeef yi ginnaaw ba ko yàlla tànnee def ko ndaw def ko yonent arsalahu yàlla yónni na ko ila jamiil xalqi ci mboolem mbindeef yi yaa ayuha nnaas inni rasulullahi ilaykum jamia yéen ñépp yàllaa ma yónni ci yéen inna arsalnaaka shaahidan wa mubassiran wa naziran wa daaiyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira kon yonent yàlla muhammad yonent la ci ñépp la ko yàlla yónni ndeke mbokk yi ginnaaw ba ko yàlla yónnee ci mboolem mbindeef yi fal waajib alayna taatuhu li nu war kon mooy ñu topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp ko topp jaamu yàlla topp ku ndax yàlla moo ko topp lu yàlla moo ne nan ko topp wa fi haza raddun ala man taraka taatuhu wattibaa'i wattabaa hawaahu lii tamit day tont day weddi day dàq gaa yi nga xam ne dañoo lànk bañ a topp yonent yàlla muhammad gaa yi nga xam ne dañoo topp seen bànneexi bakkan lii tamit dafa ñëw pour di leen tontu ak di weddi ak di dàq la ñu nekk mbokk yi wa muqtada shahadatu anna muhammad rasulullah shahadatu anna muhammad rasulullah li mu làq li mu ëmb mooy taatuhu fi ma amara moom yonent lañ ko topp ci li mu digle wa tasdiquhu fi ma axbara nañ ko dëggal ci li mu xabaar waccinaa bi ma naha anhu nañu moytandiku lépp loo xam ne tere na ko wa zajarate mu xuppaate ci wa an laa yubada bu ñu jaamu wa an laa yubada allaha bu ñu jaamu yàlla illa lu dul bi ma sharaa ca la mu yoonal ndeke muhammad laa ilaha illa allah muhammad rasulullah lii lay tekki muhammad rasulullah li muy tekki mooy nañ ko topp moom yonent ca la mu digle la mu jàngale nañ ko dëggal ca la mu xabaar la mu wax xabaar ko ne day am wala moo am nañ ko dëggal wattinaa bi ma naha anhu wa zajara nañu moytandiku lépp lu mu ñu tere te xuppe ci lu mu ñu tere sax dañ ko war a moytu waaye mu xuppe ci rawatina waaye bu ñu jaamu yàlla lu dul ci ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nii lañ war a jaamoo yàlla lii lañ war a wax lii lañ war a def nii lañ war a taxawee nii lañ war a soloo lii lañ war a lekk lii lañ war a naan kon loolu yonent bi digle nañ ko def mbokk yi ñetteel ci anasiru dars ci élément leçon bi ann isa abdullahi wa rasulu isa jaamu yàlla la yonent yàlla la wa kalimatu alqaaha ila maryam wa ruhun minhu nañu jël élément bi mooy isa jaamu yàlla la yonent yàlla la baat la yu yàlla sànni ci maryam waaye ruux la bu bàyyi koo ci yàlla foofu tamit wasafa isa alayhi salaam fi hadha alhadis bi arbaa fi arbaati awsaaf yàlla melal ne isa alayhi salatu wasalaam ci hadis bi ci ñeenti melokaan melokaan bi ci njëkk annahu abdullah isa jaamu yàlla la wa fi haza raddun ala nasara lii day dellool chrétien yi allazina zaamu annahu annahu annahu la ilahun lii day weddi chrétien yi ñoom ñi nga xam ne dañoo gëm ne isa yàlla la wabnullahi doomu yàlla la aw saalisu salaasa wala mooy ñetteelu ñetteel yi mooy ñetteelu yàlla bi yàlla yàlla la yaayam yàlla la moom moo leen ñetteel moom mooy doom ji moom yàlla la lii daa ñëw di leen weddi ndax yonent bi nee na annahu abdullahi isa jaamu yàlla la taala allahu amma yaquluuna uluwan kabira kawe na borom bi tabaraka wa taala sell ñeel na ko ci nasaraan yu kàccoore yu bon yi lii ñuy wax naan isa yàlla la yaayam yàlla la yàlla yàlla la ñaareel melokaan mooy wa rasuluhu yonent yàlla la wa fi haza raddun ala al yahud tomb bi tamit dafa ñëw di weddi yahud yi allazina kazabu bi risalati ñi nga xam ne dañoo weddi ak yonentam moog isa wa waqa'u fi ardihi ñu daal di tàbbi ci yaramam ci deram ŋawti ŋawtee ko wax ci luñ ci warul wax daal di yàq deram dem ba ëppal ci wax ci yu baree bari yemuñ ci loolu sax waaye def ay mbir daal di dajale seeni congrès ne dañ koy rey ba yàlla tabaraka wa taala muccal ko ci seeni loxo yàlla yëkkati ko jëme ko kaw asamaan kon lenn ci hadis bi dafa ñëw di weddi yahud yi ne isa yonent yàlla la tabaraka wa taala waaye wa kalimatu alqaaha ila maryam ay baat la yu mu sànni ci maryam ay xalaqahu llah yàllaa ko bind bi kalimatin ci ay baat yan baat la kun nekkal mu daal di nekk baynal kaafi wa nuun arsala yàlla yónni na biha jibril baat yoo xam ne yàlla jox na ko jibril alayhi salaam ila maryam fa nafaxa fiha min ruhihi bi izni rabbihi mu daal di ëf ci mbubu maryam ci baat ba isa daal di sosu ay baat la yu yàlla jox jibril ne ko yeggeel ma ko maryam ma jibril ñëw daal di koy eggali defee ko comme ni ko yàlla tabaraka wa taala moxee te mooy nekkal mu daal di nekk ëf ci baati mbubb yi maryama daal di ëmb isa ñeenteel bi mooy wa ruuhun minhu ruux la bu bàyyi ko ci yàlla fa isa alayhi salaam ruuhun min arwaahi lati xalaqaha allah ruux la comme ni mu nekkee yeneen ruux yu yàlla bind ka saairil xalq ni yàlla bindalee lépp mbindeef ruux noonu la yàlla dafalee isa ruux ruux la bu bàyyi ko ci yàlla comme yeneen ruux yi ni ñu bàyyi ko ci yàlla tabaraka wa taala ñeenteelu élément al amru rabi ann aljanna xaq wannaar xaq aljanna dëgg la safara dëgg la kon al imaanu bil janna wannaar min jumlatil imaani bil yowmil axir gëm aljanna ak safara dafa mbokk ci mbooleem ngëm yi nga xam ne day mottali ngëmuk alaxira gëm aljanna ak safara dafa bokk ci gëm alaxira ndax alaxira borom bi tabaraka wa taala nee na dencal nañu fa kër gu tudd aljanna waaye dencal nañu fa kër gu tudd safara kon gëm ko lu jaadu la gëm ko lu war la walakin xassahuma rasul sallallahu alayhi wa sallam fi hadha ash-shahada bi dhikri li annahuma mustaqirrun wa nihayatu al-abrar wal fujjar fal janna darul abrar wan nar darul fujjar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa dina koy saxal ci hadis bi ci tudd leen ñoom ñaar ne saxuwaay lañ ay mujjukaay lañ ñoom ñaar aljanna saxuwaay la pour ñi ragal yàlla safara saxuwaay la pour ñi weddi yàlla kàccoor yi aljanna kër la ñeel ñi ragal yàlla safara kër la ñeel kàccoor yi inna al abraara la fi naim wa inna al fujjaara la fi jahim allahuma ijcalna min al abraar wala tajcalna min al fujjaar mbokk yi samaratu shahaadatu bil umuuri al arbaa saabiqa allati ishtamala alayha al hadis meññeef yi nga xam ne moom la ëmb mooy hadis bi meññeef yi nga xam ne moom la ëmb moom la denc ñeenti mbir la moom hadis bi nga xam ne moom moo jiitu mooy xadisu ubaada ibnu saamit dafa làq ñeenti mbir denc ko bu njëkk bi mooy duxulul janna amma ala ma kaana min al amalin nit ki dana su ko gëmee dana dugg aljanna ci mbooleem lu mu mën a jëf ci mbooleem lu mu mën a wax yàlla tabaraka wa taala dina ko ne ñukk teg ko fee waaye waa ji li mu wax lii gëm ko dëggal ko ci xolam yàlla dina teg ci loolu daal di koy dugal aljanna yàlla dootul xool benn jëf bu mu jëf idan ayuha al ahbab fal muwahid fi duxulil janna ala ahdi l amrayni ki gëm yàlla tabaraka wa taala di ko kennal di ko gëm pour mu dugg aljanna foog mu nekk ci ñaari mbir yi imma an yalqa allaha saliman fi jamii min al min jamii zunub fa yadxulul janna min awalil wahla benn waa ji dajeg yàlla tabaraka wa taala mi ngi mucc ci mboolem bakkaar yi yàlla dugal ko aljanna ca groupe gu njëkk ga kon ku bëgg dugg aljanna fexeel nga dajeeg yàlla tabaraka wa taala yaa ngi mucc yaa ngi set wicc ci mboolem bakkaar yi yàlla tabaraka wa taala dina la dugal aljanna ñaareel aw yalqa allah wa huwa musirun ala zanb duna shirk fa huwa tahta almashia mën na dajeeg yàlla tabaraka wa taala sax moom waa ji moom jullit bi mi ngi def ay bakkaar waaye bakkaar yooyu nag bokkaale bokk ci su boobaa mu nekk ci suufu coobareku yàlla tabaraka wa taala lu yàlla coobarewu ci moom looloo ko neex in saa subhanahu afa anhu bu ko neexee moom yàlla mu jéggal ko bi fadlihi ci ay xéewalam wa adxalahu aljanna mu dugal ko al- aljanna wa in saa azabahu bu ko neexee mu mbugal ko bi adlihi ci maandoom su ma adxalahu aljanna mu daal di koy dugal aljanna bu ko neexee mu mbugal ko ci maandu teem mu dugal ko aljanna bu ko neexee mu jéggal ko dugal ko aljanna te du ko atte mbokk yi bokk na ci éléments yi fadilatul ixlaas mooy ngëneelug sellal man talafaza bi kalimati tawxid laa ilaha illa allah wa lam yaamal biha lam tanfaahu képp ku wax baati laa ilaha illa allah te baat yooyu mooy baatu tawxid te yow jëfewoo baat yi laa ilaha illa allah du la jëriñ wa qad harrama allahu azza wa jalla ala annaar yàlla araamal na ci safara man ataa biha képp ku ko wax képp ku ko indi képp ku ko jëf muxlisan min qalbihi mu ngi ko sellal ci biir xolam wa maata ala zalika mu faatu ci loolu kama dalla alayhi hadis at atbaan radiallahu anhu hadisu atbaan jële nañ ci ne képp ku ko wax nga sellal ko ci sa jëf nga sellal ko ci sa wax yàlla tabaraka wa taala dina la dugal aljanna dootul xool benn jëf boo jëf mbokk yi kon nañu xam ne laa ilaha illa allah la tanfa qailuha illa bijtimaa'i saba surut laa ilaha illallah ku ko wax du la jëriñ lu dul nga dëppale ko juróom-ñaari charte charte yooyu bi ci njëkk mooy shahaadatu an laa ilaha illallah charte mooy al ilm yow mi ko wax li nga wax leer la nga am ci xam-xam li nga wax mu wóor la nga am ci xam-xam waaye di wax laa ilaha illallah comme ni ko waa Sénégal di waxee laa ilaha illallah ñii di ko yuuxu ci ay sabar ñii di ko yuuxu ci ay ndënd ñii di ko yuuxu ci ay tabalaak ci keppaaru baas yi ah guddi gu nekk nga dégg ay rajo di yuuxu te koo ci wax lan mooy laa ilaha illallah xamu ko kon dafa bokk ci charte yi ki koy wax li muy wax na ko xam ñaareel mooy al yaqin na ci am yëg-yëg na ci am kóolute xam ne li muy wax lu bàyyeekoo ci xolam la lu wér la lu dëggu la ne yàlla tabaraka wa taala loolu la ñetteel mooy al ixlaas li muy wax na ko sellal bu mu ko dendaleeg lenn bu mu ko taqal bu mu ko salteel bu mu ko tilimal bu mu ko booleeg sabar bu mu ko booleeg ndënd bu mu ko booleeg sàngara bu mu ko booleeg yamba bu mu ko booleeg cigarette bu mu ko booleeg póon xoola borom gémmiñ gu tux póon ba mu xasaw yor micro naan laa ilaha illallah wala cigarette wala sàngara nag rawatina mbokk yi ñeenteel mooy asidq ki koy wax na dëggal baat bi soo waxee laa ilaha illallah ku la gis ëllëg na xam ne yow ku dëggal loolu nga waaye xoolal jullit yi koy wax tey ndax ñii seeni melokaan ak seeni jëf ak seeni dugg ak seeni génn yow mun ngaa seede ne ñii dëggal nañ ko wallahi kuy wax dëgg xam na ne ñii dëggaluñu baat bi juróomeel mooy almahabba mooy kiy wax baat bi foog mu bëgg ko foog mu am mbëggeel guy wane ne dëgg la ne kii li muy wax daf koo bëgg ci biir xolam lu dëggu la ci moom lu sax la juróom-benneel mooy al inqiyaad na wommutu topp baat bi li baat bi bëgg na ko bëgg li baat bi wax na ko wax li baat bi jëflu na ko jëf li baat bi tere na ko bàyyi loolu mooy juróom-benneelu sart juróom-ñaareelu sart mooy al qubul na nangu baat bi na nangu dëggal baat bi na nangu saxal baat bi na nangu roy baat bi na nangu ne baat bi mooy dëgg lu dul baat bi caaxaan la mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala li moo doon darsa tey bi bu amee njuum te ñu ngi koy jégglu ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla na yàlla def ci ñun dégg ak topp aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim